waaw kon ba tey ci interview yi am na benn journaliste bu laaj moom ma mujj laaj moom ci hôtel bi la ma fekk laaj na ma ne ma ndax xalifa bi niñ koy tànnee Touba dëppoo ak démocratie <laughs> ma ne ko euh, loolu dañuy dellu si ci baatu démocratie démocratie baatu grec la li muy tekki mooy xukmu champ bi bi bi maanaam nit ñi euh, nañ leen di àtte ñoom ci seen bopp nañuy àtte seen bopp ca na àtte ba gën a rafete buñ leen bunduxatal bu leen ku kuñ bëggut di atte bu ñu fekk koo xam ne moom lañ bëgg it mu mu bañ faa ne ma ne ko loolu loolu la baat bi tekki ma ne ko nag nan njëkk a ñëw ci baat bi euh, valeur boobu ngeen ko jox nag aggu ñu baal maaq ndax euh, baat bu am doole la ci ci àddina waaye li may wax rek dafa am baat yooyu tolluwaayu ko indi bu nu seetee waxtu wi nuy sog moom sunu bopp ci at yi juróom-benn fukk yi baat boobu bëriwutoon ndax booba réew yi nekk benn partie moo fay ne te dañoo accepté woon loola toléré ko mu mel ne lu jaadu la lu am la mu jub ci xel itam li indiati ñu ne dañoo war mu bari loolu it dañoo doxati ba àgg fa moo tax mu wóor ma ne danañ dox tuuti baat boobu dootuñu ko jëfandikooti moo tax ma ne ko baat yi nga xam ne dañuy xew di xew yi nun tënkuwuñ ci <laughs> wante ba tey comme ci leen toll nag te jeexu jugagun fi ma ne ko ma fekk si la fi tontu la démocratie mooy koo xam ne ña ëpp lañ ànd ma ne ko bu dee Tuubaa kon da ngeen a bëgg ne euh, xalif bi bu taxawee keneen bëgg a nekk xalifa nañ seet ka ci ëpp ay kart ñu jox ko ko ma ne ko loolu mooy démocratie dafa am nag lu am Touba loo xam ne amagulu tur ci yéen mooy kenn bañ a bëgg far <laughs> waaw xam nga bu kenn am nekkul candidat kooku kooku kooku woowu defin amagul tur ña ay candidat yu bari ñu seet ka ci ëppale waaye ku ne ne kii am a gënal sans bopp loolu moo am Touba ndax ko koo ca gis ne ko kay doon xalif dalay wax ne la xalif bi yilif ma moo ma gënal man ma yilif ma ne ko loolu amul tur li ci des mooy euh, démocratie mooy lu ñëpp tolloo ak kon bala ca kenn jot na ko yeyoo mooy am réew état bi def fi ay def courant def ndox def sécurité def lépp kon ña dëkk réew ma ñëpp a yam kon balaa kenn jël mbir mën a fekk da ko yooyoo bu dee Touba moomeel dafa am li ñuy wax moomeel moom séef ci lu jub mooy xalif bi dafa am ab dëkkam andi fa ndox ba mu doy te kenn du fay mu andi fa làmp ba mu doy te kenn du fay ku ñëw boo fa jëndee loo lekk mbaa loo naan yow la neex ku ñëw mu jox la loo lekk ak loo naan ak foo tëdd ak fa nekk foofu kër la tudd tuddul dëkk kër nag boroom a ko moom di su ko watee waaw ma ne ko kon ci wàllu yaari wàll yooyu moo waral euh, boo ci seet rek mooy dox Touba bu dee ci ñiy seet mooy keneen daa bëggul amuñu candidat bu dee ci ku moom sa yëf dañoo moom seen kër ku bëgg a dëkk nag ñu ne la kay dëkk moo tax euh, euh, loolu ñu ñu démocratie noonu la fa demee mu laaj ma ne ma kon nag dafa mel ne yéen bu dee ci fu mel ne Amérique gi ma dëkk Euh, kenn ku ne da nga moom sa bopp am sa liberté lu la neex def lu la neex wax kenn du la artu kenn du la def nangam yéen nag dafa mel ne euh, foofu moom mbooloo mi ñoo àndandoo euh, jox nañ mbooloo daal gëdd goo xam ne kenn kenn ku nekk du beru ma ne ko loolu it xaw ma loo bëgg a wax waaye anduma ceeg yow ndax da juutal doxin wi mbooloo lu mu bari bari par kenn ñoo àndandoo mu ne boo dem am na unité booy tudd boo ne deux cent milliards ci franc franc nga wax kon ay franc ñoo dajaloo soog a nekk milliard bi saaku ceeb bi ay fépp andando ba nek saaku bi motax sunu borom wax ci alquran ne wa man qatala an-nas man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka annama qatala nas jamian ndax wenn fépp ceeb bi boko touré dañ lay considéré ku tuur ceeb ndax te ay fépp andando di ceeb bi motax bo boo teralee kenn nit teral nga ñëpp bo reyee nit melna na ne rey nga ñëpp ndax nit ñi ñoo àndandoo mané ko motax nun Euh, tàmbale wuñu ci kaw nag wuti suuf ci par kenn lañ def kenn ku ne daal defar nan la ba nga mën a ànd ak sa morom loolu nag mu ngi mel ne saxaar guy dem goo xam ne wago wu ne dañ ko wutal support boo xam ne maye na am lu lonke ci moom wago wa ca desit am support bu nangoo lonk ci leneen noonu la ñuy liggéeyee noonu taalibe yi par kenn taalibe bu ne am na loo may sa morom ba mën a ba mën a ànd ak yow am na lu la sa morom may ba mën a jokkoo yow loolu nag bi ñu ko defee moo waral bu ñu àndandoo mel ne genn kurus gu ñu nos waaye nag ci par kenn lañ ko tàmbalee tàmbalee wuñ ko ci kaw wut ci suuf